والتين وزيتون والتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أقسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وأملوا السالقات فلهم أجر خير ممنون فما يكذبك بعد بالدين عليه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 إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kazibatin hatiya falyadu nadiya sanadu zabbaniya kalla la tuti'u wasjud waqtarib sadaqallahu alazim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفهم قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ماغ لين دي نويو دي لين زياره دار اهل القران دار يا خديجه ايكول كارينيك دي فام دي سيبي خوتان لي نك بي بو نين mooy eh, tari yi nu war a tari le 10 juin incha allah à 15 heures ci en face ak Obama njàng li nag mooy maire yi nga xam ni mag ñi nga xam ni dañuy jàng alxuraan pour xam seen diine ñu ci woo ñëpp nag di ci woo waa Sébikotane yëpp di ci woo waa Sénégal yëpp bàyyiwunu kenn. sunu conférence bi nag conférencier bi oustaz Babacar Loum oustaz Habib Fall. oustaz ad euh, imam Dia ak oustaz Abdoulaye Lam Amir thème bi mag ñi dabu seen jàng ci alquranul karim ñu ngi woo ñëpp nag di woo waa Sébikotane di woo waa Sénégal di woo région bi yëpp macha allah ngir ñëw ñu jàng suñu diine. ñoo ngi woo waa dëkk bi ñëpp commencé ko ci monsieur le maire Aliou ak autorité yi yëpp. di woo député yi ci dëkk bi di woo waa Sébikotane ñëpp waa Sébicoxo wa Escale waa Kipkip wa daru salam Mbay Yeeba ñëpp ñu ngi leen di woo Sébi Faas di woo waa Tàngoor bàjjenu gox yi ñuy ñëpp kenn allahu rabbi imam bi chef de quartier yi ASC yi bàyyiwuñu kenn suñu mbokku jigéen ñi surtout nañ fa allahu parce que conférence bi mooy mag ñuy dabu seen diine ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn mag ndaw góor jigéen ñëpp bàyyiwuñu kenn incha allahu rabbi borom kër yi surtout surtout borom kër yi nañ ñëw ñu xool di seeni i soxna yi di def di def si école bi parce que bu boobaa dañuy xam ne seen i seen soxna doxuñu ci caaxaan leen tax a jóg yàlla kese la incha allahu rabbi woote nañ nag ba Tëngéej ba Sendou ba Yeen ba Jalaaw bàyyiwuñu fenn na ñëpp ñëw cinquante fépp woo nañ leen incha allah